xam ne yéen a ngi topp invité de la rédaction tey ji nag ñu fas yéene sekk ak ki nga xam ne waxtaan moo di Afé Diaw nekk koo xam ne commerçant bu ñu ràññee lool waaye tamit tey danañu waxtaanee tamit ci ponk yoo xam ne jëm ci wàllu politique xam naa dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñooy topp 24 actu ñu daal di ci laaj sëñ Afé ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24 actu point com. ñu ngi leen di fay nuyoo di nuyu képp koo xam ne si ne ngi dégg sama kàddu rek maa ngi bu baax tey ñaan sunu kàddu di ko fekk ci jàmm. voilà euh, bu ñu nee Afé Diaw ñu bëri euh, xëy na euh, commerçant bi la ñuy gën a jàpp Afé kañ nga dugg ci politique ak lan moo la ci dugal. politique bi yàgguma cee dugg lenn rek moom ma ci dugal muy Idrissa Seck taalibe Sëñ Tuubaa la bu dëggal nag ci li ma gis te ñun murid yi kenn mënuñoo nax ci lu dul ñun moom loo wax ba tudd Sëñ Tuubaa rek yaa ñu moom. te Idriss Seck dafa tudd Sëñ Tuubaa muy dëgg ci moom moo tax ñun buñ sañoon rek képp koo xam si ne yaa ngi dégg suñ kàddu Idriss sekk ngay sànnil sa carte ndax mooy ki fi mën a jëlee jafe-jafe yi ne ci réew mi. voilà lan moo tax euh, parmi juróomi candidat yi nga xam ne ñoo nekk ci jongante njiitu réew yi ngeen choisir Idriss Seck euh, ci programme ngeen ko teg su ma la déggee ou bien wala da ngeen ko teg rek ni Idriss Seck murid la léegi dañ ko war a jàppale. moo teguñ ko ci programme Idriss Seck rek murid la dañ ko war a jàppale bi mu doonee loolu daa doon murid doon taalibe Sëriñ Tuubaa ba pare ñu xam ne mën na koo mën naa yor li ñu bëgg ndax président Abdoulaye Wade mi nga xam si moom ba tey dañagul ci xolum nit ñi moom nekkoon na première ministre am kon kooku boroom xam-xam la ndax Abdoulaye Wade ku mu dem ba xool ba teg la premier ministre doo ko ndaw président Macky Sall ba ma koy jàppale booba nekkagut ci nguur gi. kon daa nga jàppale naa ko jàppale ci ni ma koy jàppale man moom toujours ni ma koy jàppale mooy la ma jàppoon ci moom rek muy. war naa mën a yor réew mi yaakaaroon naa ne gëm na Sëñ Tuubaa tax ma ko doon jàppale. lan bi ma xool ne ñoom man nag Sëñ Tuubaa rek la gëm te li ma jànkonte ak ñoom ban fëloogut laa àndoon ak ñoom bi ñuy dugg keroog Tuubaa fi bëriwul ñu nangoo ànd ak ñoom waaye fu mu dugg keroog dugg naa fa dem nañ. sa gannaaw daal mu si fekk fa sëñ si xaddi ma nga si ne yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana fekk mu ñaanal ko ñu jóge fa dem sëñ Abdourahmane mu ñaanal ko ban fa jógee ñu dem xel ko mu fekk fa sëñ Cheikh sëñ Moustapha Sali sëñ Cheikh Saliou mu ñaanal ko ban fa jógee ñëw tuuba di wër kër kilifa yu mag yi di fa sàkku ñaan lépp ci sama kanam ban fa jógee ca lañ dem Taïf falaa laa jógee ñibbi ci fii boole ko wax ak jëf ba président Macky falo waaye mooy li ma la ba muy ba ma koy fal doonut loo xam ci dama ko yëgal wala ma koy naan ko tey dana ànd ak yow fal la waaye dama ko doon jàppale rek te Sëñ Tuubaa tax ba mu faloo ba dëgg rek gisuñ ko fàtte nañu waaye ñun Sëñ Tuubaa fàttewuñu. kon daal da jàpp ne fayut naar bu xorom la. fayut naar bu ñi ma ñi ma xam man ci man ñu àndoon ak Macky Sall gisuma ko ci Macky Sall gestu. waaw. Ah. Euh, est-ce que jàpp ngeen ne dina yomb Idrissa Seck euh, jël réew mi parce que seetlu nañu ne bëri na ay élections yoo xam ne Idi bokk na te xëy na mébétam mënut a sotti. gëm naa ne élection yi gëm li tax ma xam ne dana yomb Idrissa jël réew mi Idrissa Seck ba muy wut réew mi ay jamono nekkul doon taalibe bi Sëñ Tuubaa tey nag taalibe bi Sëñ Tuubaa la ci tey laay wax man bi mu doonee taalibe bi Sëñ Tuubaa man en tant que ma yaakaar Sëñ Tuubaa Idrissa Seck di wutum nekk taalibe bi Sëñ ma xam ne li muy wut mën na koo yor kon danaa ko si jàppale ak ku ma am voilà Afé euh, xam naa li ci des bëriwul ci waxtaan bi ñu wéyal rek euh, gis nañu ne élection yi tàmbali na am ay violence maanaam am na sax ay ñoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan en tant que koo xam ne acteur politique wala koo xam ne ci société bi la bokk lan ngay wax. lenn li sax rek day boo ko xoolee day bokk ci ñàkk gëm yàlla nit ki ak noo mën a toll ak loo mën am doole joo mën a suñ borom moo la jox jooju doole kon bul jëfandikoo sa doole ci kaw doomi aadama yi nañ xam ne euh, li ñuy def nii dañuy tànn suñ njiitum réew kuñ war a fal président de la république kon lépp dañ ko war a def ci ak dal akuk yaru bañ violence moom lu dugg lu ne rek baaxut te ñun moom fas yéene wu ñu politique violence jàmm ak salaam rek ji sëriñ bi woote ci dëkkam bi ci la ñuy sax ba ila yawmi diine Euh, balaa ñu egg ci laaj bu mujj bi. Idrissa Seck mi ngi war a ñëw Touba naka ngeen compté organisé wu pour euh, dalal ko. waaw mooy comme ni ko taalibe Sëñ Touba yi nar rek mooy Idrissa Seck mi ngi ñëw Touba moom taalibe yi benn benn kàddu la jot ñëpp li ñu wax mooy danañ ko teeru ba bu ñëwee xam ne Sëñ Touba amul morom. Euh, di jaajëfal ñi nga am si ne ñooy ñoom la àndaloon ci yëf yi ak mboolem képp koo xam si ne yàlla dogal ne na ab murit nga te gëm Sëñ Tuubaa ñu ngi lay nuyu di la siyaar te di leen jaajëfal tey ñaan élection yi lépp suñu borom def ko ci jàmm mu jàll ci jàmm ak salaam. jërëjëf jërëjëf mu nekkoon invité de la rédaction tey nag ñu sekkoon waxtaan ak ki nga xam ne nag moo di Afé Diaw nekk commerçant bu ñuy ràññee lool waaye tamit amaat beneen casquette boo xam ne dafay yëngu ci politique di jàppale ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck ngir jongante njiitu réew yi nga xam ne moom la ñu dënmal ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm Seexuna moo nekkoon ci caméra bi Awa Ndiaye sant ñëpp di leen jox dig daje incha allah ci yeneenu jotaay ci 24actu point com